dañoo nemmeeku benn jaay doole boo xamante ni mi ngi jógee ci état bi jëm ci commerçant yi euh, lu ma ciy wax mooy dama leen koy résumer rek mu gaaw ndax ngeen mën ko comprendre dafa am benn loi bu ñuy wax loi 2019 dafa interdit woon ñu importer sachet plastique am yoo xam ne bàyyi woon na pour ñu continuer di ko importer loi Bobu maa ngi wax 2019 loi Bobu 2015 la loi 2015 bi nga xamantene ne ñu ko importer ba décembre 2019 gouvernement bi da di teunk ben loi da na légui dañuy interdit sachet plastique formel formel ñu nangu ben période bi koy def fekk ñun ñu ngi suñu activité def nañu ay commande jënd nañ ko Thaïlande jënd nañ ko Chine jënd nañ ko partout waye état bi tenirul compte ci lool fa xey xey rek dal di voter loi bi bi mu voter loi ba paré avant loi bi entrer en rigueur mu interdit sa plus de 200 300 conteneurs yo xamanteni ñi ngi bloqué fi ci Karang yenn port de Dakar ñu ak mom nek ci ak ñom di masla di waxtaan ci ak ñom di masla di waxtaan ba suñu fournisseur yi ñu joxoon marchandise yi kon thailand ñëwoon nañ sax Sénégal pour xool ba xam problème boobu ban lan moo ci xew bi situation bi ñoom itam coowal Covid bi ñu daal dem ñibbi marchandise bi continué di fa bloqué wu ba loi bi nga xamante ne moom la ñu promulgué ne ñu ngi koy euh, doxal ci 4 quatrième mois 2020 des ñaar fukki fan wala fukki fan ak juróom état bi daal ne mën ngeen dem fay seeni conteneur waaye foofu tam dafa am lu ma bëgg a leeral tuuti bi mu ne mën ngeen dafay fay seen conteneur dama leen jox benn exemple bu njëkk boo mosaan indi conteneur bu ndaw war ci fay 4 millions 500 waaye ba ñu demee dañ ko doublé ñu ngi fay conteneur bu ci nekk 9 millions am na ñu fay sax lépp 9 millions par conteneur waaye boobu yàkkamti nañ te ab jaxasoo nañ. Oui, ce ci est le c'est de douane entre le 14 le 15 le 20 bagage commence à être dépôt le même état bi ci des service le 29 ci même mois bi de mars d'ici. à travers ministère de l'environnement C'est ce que nous mënta comprendre que nous lan lay jaay doole lañ ko tudde wala foqat ci lañ ko tudde wala complot d'état lañ ko tudde ah loolu moo tax nag comme ñun ay commerçant lañu euh, du ñu faral di xëccoog di xeex di taal pën ak def yeneen affaire ñu continuer ay waxtaan bi ñu continuer waxtaan yi lañ ca doon demandé mooy ñun mënuñoo tere loi ci réew mi lañ bokk loi bu ñu fi indi mën nañ ko nangu waaye loi boo xamante ni suñu kaw la jëm

ci digënté une semaine fi nga fayé ba génn sa marchandise état bobu ñëwaat di nanguwaat sa marchandise lool nak moy lo xamante xel sax da ko mënta nang liñu conteneur ci conteneur bari na parce que dañ ko bloquer d'abord ñom bloquer nañ conteneur yi 3 mois da xam nga conteneur bu fekkee bloquer nañ ko fi ci port ak ciowal Covid bi yaa ngi war a fay magasinage chaque jour ak série yi ak yi ci and yépp chaque jour 80000 francs mais conteneur yi nga xam dafa jaaroon côté Banjul fa lañ ko waccé won ak Karang biñu ko dindé ba def ko ci auto yi auto bu ci né ñi ngi doon fay 25000 par jour wala 50000 par jour té lolu bloqué nañ ñu ci 3 mois. mu nekk ñaata conteneur au total. li ñu importé ci ay conteneur mat na cinq conteneur lepp boko xolé ci 4 mois ci xayma ñaata personne la impacté. ci xayma lim mu ci personne mat na deux personnes. Hum. légui nak lan ngeen bëgg yem. ah li ñu bëgg moy ñu rétablir ñu ci suñu ay droit bu dee réewum réewum droit la.

bon li nga xamanteni ni c'est que ci valeurs yi ñu mëna c'est yi ñu mëna assister ci ci ci ci plastique ëpp na 7 milliards waaye bu ñu la 7 milliards bul defee ne 7 milliards pour les commerçant yi commerçants, commerçant yi ni ñuy liggéey ci bitim réew dañuy dem fournisseurs yi jox leen ñii dañuy jënd ñii dañ def ay prêt banque ñii dañoo jaay seen kër di liggéey kon 7 milliards ak fii réew mi toll. Abdou Karim Sall ministre bi ci boppam mo dem ba yag mu ne président néna na naa sama tank lutax mu ne président néna naa sama tank parce que xamné ne lim ñu teg metti na tay bi mu ne maa ngi teggi sama tank bi téggé sama tànkam nag lañ ñuy wax ne mën ngay dem fay kon ñu gëm ne la waxon fofu def nako ñu dem fay ba paré indi marchandise bi entre le 15 ba le 29 ay service mom ministère de l'environnement dem saisir ak ci marchandise mi valeuru sept tonnes yoo xam ne dañ ne dañ koy lakk